ci Sénégal rawatina ci programme TFM nga xam ne dafa leen motiver ba ñu xam ne Sénégal am na koom-koom madame Touré nuyu nañ ko madame Oumou Khayri Camara ñoom euh, madame Youm Adja Touré xoolal ñooñu ñoom Daba Diop ah nekk ca Nouadhibou ñoom Jamila Sané ca Dakar ah Codou Fall ca Suisse ah madame euh, Fally Seck ca Lyon ñoom ñëpp daal ànd nañu mbégte contentement waaye di ñuy suñu góor gi nga xam ne moo nekk ca Passy di Seydou nekk ca Son A yal na ko yàlla defal jàmm Pierre de Silva nag Adja Aïda Diongue ca préparation recevoir ki nga xam ne moom mooy euh, Père Ablaye Wade moom la ñuy dem seeti pénitentiaire pénitentiaire pénitentiaire ah ñoom de xam naa ne li góor gi nar a ñëw seet si ma tey tax tey ñoom waaw xale bi na def. sant yàlla kaay ma nga teel ma nii teel ma nii rek tey góor gee ñëw. laay presse bi ñëppay ñëw dégg naa waa France Inter rek Africa balak TFM ak ah. ibbil ma ni kii de kee ma ko fi indiloon visite keroog waaw jàppal nii góor gi bu ma gisee dina xam ne ne jeexuma de ah doom xool ma. ma xool looy mag yow. ah doom yow tamit tey la góor gi di ma seet si kat damaa bëgg kat mu xam ne ne man bëgguma mu stressé benn yoon xam ne ne Adja ay da fi bàyyi yoon amul benn stress changement. fii maquillage amu fi te nga wàccee sa ginnaaw mbub mi. ah <laughs> doom. tey de Ablaye Wade bu ñëwee moom danaa ko kalaameeg yéen yéen daal vraiment nekkin bu rafet nga nekk nag man yéen xam naa ne yéen moom garde pénitentiaire yii da ngeen mënul wax rek ndax lu waaw ne xam naa ne may toppatoo macha allah xale yu baax ngeen yow barki démb sama gan gi ma fi indiloon euh, misu bi maa ngi koy maa maa ngi wax xale ne ca kii bi Ablaye Wade day ñëw nañ ko lekk te ñaanal ko te góor gi ñëw jàmm yow góor gi toj na dëkk bi xale bi jigéen bi <laughs> Ablaye Wade yàlla ko may yàlla moom bu la may moom da ngay nangu xam naa doo mën a tontu ndax te ni bi nga sol waaye doom te bu Abdoulaye Wade ñëwee rek nga xam ne ne euh, euh, euh, waalo yëngu na maa mu sëb bi baax na xool ma fii ndax dafa amul ay kii kii ah may yow man fàtte naa ne Abdoulaye Wade bi ñëw ñëpp di nangu waxtaan wax dëgg de waaye di wax a ku dul tontu kay xanaa laay laay la laa noo santati sàmb waaw waaw kumba laari sàmb xamul sax ma sopp la ni nga sant sàmb rek dama amoon chauffeur bu baax a baax a baax xale bu baax sant Samb waaye nag euh, Sambeen ni dañoo baax na def doom. ah <laughs> muy ci biti nu mu mel nag dégg naa Ablaye Wade ñëpp a ngi toog di xaar. Hmm. waaw ci biti génnoo sànq ba tey. ba ma xëysee ba léegi génnaguma. déglu déglu góor gi ñëw na déglu sore ba dégg nga bëri dégg nga bëri góor gi ma ne góor gi. góor gi góor gi góor gi eh, eh. ma ne góor gi waaw waaw góor gi ñëw na góor gi ñëw na góor gi ay waay waalo ñëw na góor gi ñëw na ay waay góor gi eh, waaw waaw mana wa ñaan daara war ñaan boo ñëwuloon fii dina ma bett ma ne Ablaye boo ñëwuloon ci kase bi seet si ma dina ma bett ay góor fii du waalo de non billahi nga ne bu dul waalo tamit doom dugal ngeen ma dugal ngeen ma bésu talaatay ndeer ndax taal sama bopp ci des góor gaa ngi ne góor gi Ablaye maa ngi Ablaye maa ngi maa ngi Ablaye maa ngi maa ngi Ablaye maa ngi nii maa ngi ab jàppale ma